waa billaahi mina shaytaani rajiim ginnaaw ñu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di gërëm sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fa lool te wér di ñaanal sëñ Cheikh Fall jëmb di ñaanal suñu kilifa suñu sëriñ sëñ Cheikh Fall ndigal mu yàgg fa lool te wér ak mboolem njabootu sëñ Cheikh Fall Baye yëpp ak yëpp ak taalibe yëpp ak murid yëpp man nag ñu ngi may wax sëñ Moustapha ab mu sëñ Cheikh Fall Baye Diop noonu laa tudd. moom mbiram mooy ndigal te ndogo yi dañuy wax ni sëñ Touba moo ko digaloon Cheikh Ibra waxoon ko ne damay am gan te bëgg nga teral ma ko gan nga mooy weeru koor kon teraanga ji mooy ndog yi nga xam ne moom la waa kër Cheikh Ibra Fall di togg di ko indi sëñ Touba ah lii nag cosaan la ci barab yi ñu ko indi. ndax sëñ Modou Moustapha Fall ak sëñ Moustapha Mbacke la woon sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma ak sëñ Cheikh Fall Baye Góor loolu mooy law ba ci sëñ Cheikh ba sëñ Mbacke Soxaloo ba ci sëñ Cheikh Ndigal ba tey jii ci sëñ sëñ Cheikh Ndigal tamit di wëlbatiku di dundal la nga xam ne moom la fekkoon waaw mooy mbirum moo xam ne cosaan daal mi ngi tàmbalee ci sëñ Touba jaar ci sëñ Modou Moustapha jaar ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma jaar ci sëñ Mbacke Soxaloo ba ci sëñ Moustapha Njañ mii ñu koy ñaan mu yàgg fa loolu te wér kenn yàgg ko ànd ak moom di ko liggéeyal ci ginnaaw sëñ Cheikh Fall borom ndigal Baye Fall moom ndigal mooy mbégteem lépp loo xam ne sëñ bi da koo digle rek loolu fi la nekk bu ni woon bu ni woon bu kenn ñëwit fa la suñu mbégte nekk bu ni naa dajalee nit loolu mooy suñu kon na woon daaw loolu moo ñu gënaloon daaw ndax loolu ndigal la ni woon ren loolu moo ñu gënal ndax li ndigal la waaw kon nag dañuy sant tey ñaan nag li nga xam ne moo waraloon mu demee woon nam demee woon daaw suñu borom jëlee ci réew mi ba mu sës ci wicc ban mën a àndaat ak sëñ bi di ko liggéeyal yàlla defal ñu xéewal ko tamit ko mën a ànd di ko liggéeyal loolu la ñuy ñaan rek moom daal ak Baye Fall moom ndigal mooy jaamu yàlla bu xasee dégg ndigal daal amatul leneen loo xam ne moom la war a def lu fexe ba daan ndigal loola rek ci lool la baay Fall yi nekk moo a lii lépp. maa ngi tudd sëñ Lamine Kane euh, bokk ci waa kër Cheikh Modou Kane Sine ñi nga xam ni tey jii sëñ Abdoulaye Kane bi moo fii suñu kilifa. doon ñoo xam ni itam sunu lépp day Cheikh Ibrahima Fall ndax sunu maam di Cheikh Modou Kane Sine léppam daa doonoon Cheikh Ibrahima ndax euh, ndigal la loo xam ni Cheikhul Khadim moo ko joxoon maam Cheikh Ibrahima Fall nag moom ndigal rek mooy mbégteem loolu moo waral saa su saa su ñëwee nag Baye Fall yi dañuy daal takkuwaat bu baax a baax fas yéenee jëfee ndigalu sëriñ boobee ndax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ni euh, bisu koor gu ne benn bis bu ne moom euh, euh, maanaam fanweeri fan yu nekk moom ci benn bis lañ koy fay loolu nag moo sababoon euh, Baye Fall yi saa su koor gi jotee ñu àndandoo takkoo dajale seen i addiye ñëw jébbal ko sëñ bi ay àndandoo itam di di di leen gunge ci weeru koor wépp waaw ndax kenn ku ne xam na ci lislaam joxe ñam lu am solo la ci lislaam ndax maam Cheikh Ibrahima Fall da daan wax ne addoom dabe ndab mu doon loo xam ni itam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba ba nëgëni képp ku ku ku dàq jëf ci lislaam yaa ëpp yaa ëpp ngërëmul yàlla ndax boo ko tàmbalee ci Seydina Ousmane mi nga xam ni saxaaba yi bari nañ waaye li ko yàlla defal ci ci ci ci ci ay ndam ak i daraja te te bi eh, wax ko ko te Sëñ Tuubaa dañu ko waxal eh, lépp joxe addiya rek moo ko moo ko waral loolu moo moo tax nag koo gis tey ji mu takk laxasaayam xasaayam fas yéene am mbégte lool ci ndigalu Sëriñ Tuubaa jëf giñ ko jëf ak xam li nga xam ne moom moo fecc di santaat bu baax sëñ Cheikh mi nga xam ne sëñ Cheikh Ndigal nga xam ni mooy sunu sëriñ ñu fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi euh, euh, di ko ñaanam yàgg fi loolu te wér. kër gi euh, day këru cosaan ndax sëñ Cheikh kër Cheikh sëñ Cheikh Mbacke la di kër sëñ sëñ Mbacke soxna loo ba tey loolu moo fiy sos soosi mu doon foo xam ne tey di nga gis ni lenn ci Baye Fall yi ñu ngi fi. muy waa kër sëñ am Amdi Modou Mbenda boo xoolee yaa ngi leen gis fee waa kër sëñ Cheikh Ridial yaa ngi leen fekk fee yaa ngi fi fekkaat sëñ kër sëñ Cheikh Ndigal Fall kon muy loolu loolu day cosaan loo xamante ni moom lañ fi fekk euh, fas yéene daal euh, àndandoo liggéey bi euh, di santaat sëriñ bi daal loolu moo ñu fi moo ñu dajale ñu ngi sant nag mbokk taalibe yëpp nga xam ne fenn fu ne ci ci ci réew mi jóge nañ fi ba bitim réew sax dañ fiy jógee ngir teewe si kumte lii nga xamante ni moo suñu suñu defaru àdduna ak àllaaxira teg nañ ko ci tey lañ koy ame waaw.